bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alambiyai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk jullit yi ginnaaw bu nu sante sunu borom julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bi di bisub ajuma di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar muy xëyte ci maamu koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent di fàttali sunu bopp di leen fàttali ne sunu borom mi nu wàccee ci kaw suuf dañoo sant ab liggéey liggéey boobu ñu ma mu ñu sant nag moom la ñuy wooye jaamu yàlla jaamu yàlla nag day baat boo xam ne soo ko waxee mu gàtt waaye li mu ëmb dafa yaatu ndax jëpp jëf joo xam ne soo ko jëfee moo xam mu feeñ wala mu nëbbu waaye soo ko jëfee mën nga caa am ngërëmul yàlla loola jaamu yàlla ba tey jëpp wax joo xam ne soo ko waxee moo xam mu feeñ wala mu nëbbu waaye mën nga caa am ngërëmul yàlla loola jaamu yàlla moo tax ñu ñuy wax naan al ibadatu ismun jaamiun li kulli ma yuhibbuhu allahu wa yardaahu min al aqwali wal amali alzahirati wal batina kon jaamu yàlla lu yaatu la tey nag ñu tànn ci benn tomb di di ko fàttali sunu bopp di leen ko fàttali te moo di futtiku liggéey te waxtaana liggéey ci pàkk bii day lu yell la lu jaadu la ndax borom pàkk bi da ci daan soññee daan wax ne liggéey ci jaamu yàlla la bokk ñi jëkk ànd moom ba ci ñi mujj ànd ak moom it xam nañu ne ku fonkoon liggéey la mboolem ñi ñuy tudd di tudd it dañoo fonk liggéey di ci soññee mboolem ay jëwriñam yu jëkk ak yu mujj itam dañoo fonk liggéey di ca soññee liggéey nag war nag ku ne waaye rawate nag ki dese kàttan muy ndaw ndaw lu ne war ngay liggéey ngir sàmme ko sa ngor sàmmi ko sa diine bañ a tàllal sa loxo mu jëm ci kenn ndax nit ki li muy jëfandikoo di ko xéewloo la ci gën mooy lamu ñaq la mu jëf alayhi salaatu wasalaam nee na doomu aadama mu ne maa akala ahadun taaman qattu xayran lahu min amali yadi kon neena nit la muy xéewloo di ko jëfandikoo la ca gën mooy la mu ñaq lislaam sax dafa fekk liggéey yoo xam ne nit ñi dañu ko daan xaw a xeeb di ko ñàkkal solo waaye mu di ko yëkk yëkkati di ko wane ndax bëgg a wax rek ne toog ak loxoy neen moom lépp ko gën moo tax mu wax ne mamin min nabiyin illa waraal xanam moom ki yàlla mujj yónni nee na amul benn yonent bu jaarul ci sàmm ak jur te nit ñi liggéeyub sàmm ñu bari dañ koo xeeb am na beneen liggéey boo xam ne nit ñi dañ koy xaw a ta mu wax ne moo di tàllal lox te mooy taxan matt di ko jaay mu wax ne la an yaxuda xablahu fa yati bi xazmati xatabin ala dahrihi fa yabiuha fa yakuffa allahu biha wajhah xayrun min an yasala annaasa atawhu aw manauhu nee na nit ki jël buum dem ca àll ba taxan sayu mat jaay ko faje ko ay soxlaam sàmme ko ngoram ak diineem moo gën muy laaj nit ñi bu ñu ko joxee bu laaje bu ñu ko joxee def nii moo gën bu ñu ko xañee def ni moo gën bu ñuy nafar al alquran di ca nab na bi dañuy gis ne yàlla sunu boroom limu mu tudd julli ci alquran kenn xamul numu mu toll waaye ñaari fu tudde julli da cay teg joxe da cay teg joxe te joxe moom ki mën a kiy liggéey rek ba am yëfam moo mën a joxe bu ñu demee ca saaro baqara ca tàmbali ba rek ba mu waxee ne hudan lil muttaqin alladina yuminuuna bil ghaybi da caa teg ne wa yuqimuuna alsalaata wa mimma razaqnahum ñu ñëwee sax ci saar yi gën a féete suuf nga xam ne sama maas gi moom la ñu gën a yàpp dama dafa wax ne wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisi muxlisina lahu diina xunafa teg ca wa yuqimu salaata wa yutu wa dalika diinul kayima wax na ne li ñu sant jaam ñi mooy jaamu yàlla te sellal jaamu ga tey julli tey joxe te xam na ne xam nañu ne kii liggéey mooy am lu mu joxe bu ñu demee ci saar wi mu tudde bis bi muy ajjuma ca mujjug saar wa nga xam ne da cay soññee ci wax ne bu ñu noddee bu ñu yëkkatee baatum noddu na ñëpp lagg dem julli ji waaye da caa teg ne bu ñu jullee ba sëlmal tam ba julli gi jeex na ngeen tasaaroo ci suuf si te sàkku ci xéewali yàlla yi yaa ayyuha alladina amanu ida nuudiya lis salaati min yawmi aljumuati fasaw ila dikrillahi wa darul bay'a xayrun lakum in kuntum taalamuun lu ca teg nag fa ida qudiyat salaatu fantashiru fi l ardi wabtaxaw min fadlillah kon nimu mu soññee jaam ñi ci bu ñu wootee julli nañu lagg julli ji noonu la soññee jaam ñi ci bu ñu sëlmalee nañu lagg liggéey yi kon yàlla nimu mu santaane julli rek noonu la santaane liggéey euh, bu ñu demaatee tam ci alquranul karim gis nañu ne am na ñett ñoo xam ne sunu borom da leen a dogal ngant ndax xam na ne seenu jot ak seenu tal bariwul bala la ñuy yéenee jàng ci alquran duñu ko man muy kiy jihaat ci yoonu yàlla di xare ngir yëkkati baatub yàlla kooko jotam euh, du ko du tal euh, jàng alquran ca na mu ko yéenee ak na mu ko bëggee ki yaramam naqare tam mu tëdd kooka tam du tala jàng alquran ca nam ko yéenee ak nam ko bëggee waaye kii laxasaayu tam di xëy di gont di liggéey moom itam ak jotam akuk talam du ko may muy jàng alquran ca nam ko yéenee ak nam ko bëggee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

dogal ngant ndax xam na ne duñu ko tal muy kane ca xare ba di yëkkati baatu bi yàlla ak ki nga xam ne yaramam dafa naqari ak ki nga xam ne day xëy di gont ñooñu duñu tala jàng alquran te nañ ko yéenee ak nañ ko bëgge moo tax yàlla dogal leen ngant wax ne nañ ko def nañu ko mane rek faqra'u ma tayassara min alquran alima an sa yakunu minkum marda wa axaruuna yadribuuna fi l ardi yabtaxuuna min fadlillah wa axaruuna yuqaatiluuna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu kon gis ngeen yàlla ni mu boolee liggéeykat bi ci ñi mu dogal ngànt sëriñ bu mag bi nag moom la mu wax moo jeexal wax ci nee na wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri wahami nee na sàkk lu lew farata la ci bépp jullit te farata mooy loo xam ne mënta ñàkk te wàccul kenn waaye baat bi mu jëfandikoo am na sew-sew mooy sàkk lu lew kon nag yéen ndaw ñi nga xam ne dangeen ngeen futtiku di liggéeyi ngir bëgg a am lu ngeen suturloo lu ngeen sàmme seen ngor ak seen diine na ngeen bàyyi xel ne lu lew la sëriñ bi wax lislaam lu lew la santaane moom sëriñ bi nag santaane gi mu santaane liggéey di ca soññee ba mag ñi àndoon ak moom ak mboolem ñi ñuy tudd di ko tudd ak i jëwriñam ñoom ñëpp di ci soññee li tax ñu koy soññee nag waxuñu rek ngay kër-këri ba am sa yëf wut ba am rek taxul ñuy wax waaye dafa am ay sew-sew yu ne ci biir yoo xam ne moo tax ñu ciy soññee ba ci jëkk moo di boo dee sàkk lu lew ba am ko ngay jëfandikoo lu lew day waral ñu nangu sag jaamu yàlla kon ki ñuy nangu ak jaamu yàllaam mooy kiy jëfandikoo lu lew moo tax sëriñ bi wax ne laa yanfau l ilmu wala al ibada bil akli lil xaraami inda saada nee na lu baax lu mu mën a doon boo ko dee jëf te lu lew nee na du am njariñ kon ndeke lekk lu lew mooy tax ñu nangul la sa jaamu yàlla waaye waaye loo mën a def te lekkoo lu lew kenn du la ko nangul muy benn ñaar mooy booy jëfandikoo lu lew day tax jaamu yàlla dalay yomb kon ki jaamu yàlla jafe mu am jafe-jafe ci def lu neex yàlla na seetaat la muy jëfandikoo boo dee jëfandikoo lu lewul jaamu yàlla dalay jafe yàlla sax wax na ne yaa ayyuha rusulu kulu min at-tayyibaati wa amalu saaliha yéen ñi ma yónni dee leen lekk lu lew te jëf lu baax day wane ne kon lekk lu lew day yombal jëf lu baax moo tax sëriñ bi wax ne fa kul xalaalan in aradta an tuti allaha wa rasula ya haada al mutia nee na soo bëggee topp yàlla ak yonent bi de lekk lu lew waxaat na feneen ne yaa saaxi kul ma chita tafaal mislahu wa xaalilan man chita taxdu shaklahu nee na booy wut wut xarit man nga ànd ak ku la soob waaye bu yàggee mu wàll wàll jikkoom wax ma sa xarit ma wax la sa jikko kon nee na mën ngaa ànd ak ku la soob waaye faw mu wàll la jikkoom mu ne itam mën ngaa lekk lu la soob waaye li nga lekk rek moom ngay jëf kon soo dee lekk lu lew da ngay jëf lu yiw da ngay jëf lu yàlla nangu ba ko ñetteel mooy am na beneen sew-sew mooy soo dee jëfandikoo lu lew day tax ñu nangu sag ñaan te ab jullit saa su xëyee ak su gontee ak waxtu wu mën a doon ma nga dëkk yàlla ay loxoom di ko ñaan lum bëgg yàlla ñoddil ko ko ba mu jot ci wala lu bëgg yàlla dàqal ko ko ba mu sori ko yàlla fajal ko ay aajoom yàlla defal ko saadatu daaray ni waaw di ñaan yàlla nag tey jëfandikoo loo xam ne léwul loolu ko koy def euh, xamoo fooy teg sab tànk moo tax mu waxoon moom sang ba ne da gis ku tàllal yàlla ay loxoom sonn ca lool ci la muy ñaan waaye la muy lekk amul solo la muy naan amul solo euh, la muy jëfandikoo amul solo ndax ndax dafa dafa xaraam nee na fa anna yustajaabu la nee na naka la yàlla di nangoo ñaanam moo tax am na ci saxaaba yi ku ñuy wax saad ibn abi waqaas mos naa wax sang ba alayhi salaatu wasalaam ne ko dama bëgg nga ñaanal ma yàlla ma am ijaaba ijaaba mooy loo ñaan yàlla nangu ko te loolu am am na ñoo xam ne lu ñu dogu yàlla fekk leen ca mu ne ko nag damaa bëgg nga ñaanal ma ma am ijaabatu mu tontu ko ne ko atib mataamak tustajab daawatuk mu ne ko na nga teeyal li ngay jëfandikoo kon ñu nangu sag ñaan maanaam kon de lekk lu lew kon ñu nangu sa euh, sag ñaan bokk ñeentel moo di li tax euh, ku baax ki di santaane di soññee ci lekk lu lew mooy sooy liggéey di liggéey di sonn ba am sa yëfi bopp su boobaa dootoo sukkandiku ci kenn ku dul yàlla ba noppi nag sukkandiku ci sa bopp ndax soo amee sa yëfi bopp dangay xam ne yàlla la ko jox kon ginnaaw boo sukkandiku ci yàlla ba am ko da ngay sukkandiku ci sa bopp dootoo sukkandiku ci kenn te nit ki bu dee sukkandiku ci boppam day moom boppam ndax nit ki feek ñu koy manal di ko sañal loolu sa wolof moo ko wax ku manal sañal la wolof day wax sax ne ku la abal ay bët dana la xolloo fa ko soob kon kenn ku ne ci nun day fexe liggéey futtiku di liggéey di góorgóorlu ba am yëfi boppam yëfi yoo xam ne euh, kenn du ko xolloo fa ko soob su boobaa nag day moom boppam du am soxla ci yëfi kenn xam ngeen ne pàkk bii ñu nekk pak bii ñu toog ba ko ku baax ki naalee te booba ma nga njaareem dafa tobbi woon ay sas nen na kenn ku nekk joxe ñaar fukk ak juróom-ñett waxoon ne kenn ku ne ci yéen mooy sama jawriñ ci ak njabootam nga xam ne booba jamono melul ni jamono ji booba ñaar fukk ak juróom-ñett ñi ko mën a am bariwul waaye ña nga cay góorgóorlu ñii di saaj ay poqe di jaay ñii di for new di jaay ñii for siddéem wala sump di jaay nga xam ne kenn ku ne daal noo mën a def ba am ko rek yaa ngi koy sabablu bañ ko dajalee ci jamono jooja muy alal ju bari ndax ay million la woon waaye dafa woote jaajëfal mbooloo mi ne leen nag lii leen sant dama bëgg su ëllëgee lépp lu ngeen sumbati ngeen def nii mooy def leen ci la ngeen man ba ngeen man jeex la ngeen man fu mu jeexe toog leen fa nekk fa sa sa nekk fa sa mu ko xeeti sax sa yajalullahu baada usrin yusran seen man-man bu jeexee ngeen taxaw fa nekk fa baat boobu mooy yàlla daal lu jafe lu ne dana ko mos a yombal daal ne tubaab bii ma seqal su ma ne ko woon jumaa laa bëgg dana ko def na ma ko bëggee du ma sonn du ngeen sonn ndax maroog man rek la bëgg maroo mooy juboo dafa bëgg maroog man moo tax su ma nekkoon damaa bëgg jumaa mu def ko na ma ko bëggee te du ma sonn du ngeen sonn waaye su boobaa damay sañal te wolof nee na ku la mënal sañal la te yàlla na fekk nag mu war laa sañal kon bañ tubaab bi sañal ko moo tax mu fexe ba manal boppam moo tax ay jëwriñam yi ko wuutu woon sémb buñ mos song daan ko te musu musuñoo tàllal lox musuñoo sàkku ndimbal ci biir réew wala bitim réew te lu ñu mos a song daan ko loolu day wane ne kon soo mënalee sa bopp da ngay sañ sa bopp kon nag ñi toll ci liggéey am kàttan muy ndaw ñi nañu yóbbaloo bind boobu waxtaan wi nag jeexul waaye mel na ne waxtu wi dëgmal na moo tax dañu koy tënk di ñaanal sunu kilifa gu mag ne ci kanam mbooloo mi yàlla na ko yàlla gën a sàmm gën ko wéral yokk ko aw fan ba lépp lu mu yéene ci toolub lislaam bi ci waaru sëriñ bi mu def ko na mu ko bëgge te nu ànd ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bët akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa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 akbar laa الحمد لله حمد الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وأشكر شكر الذين صدقوا فلا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وأشهد أنه الله الذي خلقه فسوى وعلم من خلقه السر والنجوى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اختار نبينا وسيدنا محمدا واصطفاه وبالشفاعة ارتضاه وللمقام المحمود أرضاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام وأصحابه الأعلام الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا واستعملوا جوارحكم في المحافظة على ما جاء به نبيكم وتمسكوا من خوف الله والرجاء له بالمعتصم الأقوى إن كنتم إياه تعبدون واعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وحصول المؤمل ومن ارتدى إنما هو في الخوف في الجمع بين الخوف والرجاء اللهم آمن خوفتنا ولا تخيب فيك رجاءنا وأنقنا سؤلنا فقد أعطيتنا بمنك الإيمان من قبل أن نسألك ونعرف أن فيه رضاك نسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه آمين الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وعم العوالم جودا وكرما وكرما وحلما وأسبغ على عباده بوجود نبيه المصطفى الكريم من النعم ما لا يحد بقياس ولا يعلمه إلا العلي العظيم نحمده تعالى ونشكره ونستغفره ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو الملك العلام ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرفيع المقام sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashaabihi al-a'laam amma ba'du fa'lamu ayyuha al-ikhwaan waffaqana allahu ta'ala lima bihi atammu wa akbaru ridaan وأيدنا وإياكم بحسن التوفيق على قدم الإحسان أما التقوى هي العروة الوثقى والتجارة الكبرى وبها اعتناء أولي النهى وبها نالت الصوفية أجل المتمنى قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبادروا بلحاف التوبة قبل انغلاق بابها وبالأعمال الصالحات قبل فواتها الله الله عباد الله أن تمحقوا أوقاتكم بالتسويف أو تركنوا من أعمالكم إلى البحث والتطفيف فتردوا المعاد بغير ذات وتندموا على قلة الزرع عند معاينة الحصاد جعلني الله وإياكم ممن إذا وعظ اتعظ وإذا نبه استيقظ وإذا نبه وأوقظ استيقظ لا من الذين إلى يوم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 sabbuhan

borom Tuubaa Allahu akbar Allah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 ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن العذاب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم akbar sami allah liman الله أكبر asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.